We now turn to our readings. Uh, first reading is taken from the Acts of the Apostles, uh, chapter 15, uh, verse 1 and 2, 22 to 29. Auntie Ilendur will do the reading for us. jàngaatu xabaaru apotariya ay nit ñu jógewuñ yu dee bëggoon nañu soppali xeli yi bokkoon ci jàngu antos ne leen su ngeen jongulee naka la ko ebalee ñu ngeen mun a muccal loolu tax Paul ak Bernabe am ak ñoom ci loolu xëccoo ak werante bu metti yi jullit yi dogal ne Paul ak Bernabe ak ñeneen ci ñoom dinañu dem Yerusalem fa apotariya ak Makiya ndax lijanti solo soosu apotariya ak Makiya mujjee nañoo jubboo ak mbooloo mépp fasoo taana ci seen biir ay ndaw yi ñu yónni antos ànd ak paul ak barnabe ñu taana silas ak yuud mu ñu dankantalee barsabaas ndege boroom tur lañu woon ca mbooloo ma ñu jox leen bataxel bu ñu bind ne apottar yi ak mag yi a ngi leen di nuyu yeen suñuy mbokk yi jóge ci yifar yi te tuub yeen waa antos waa siri ak waa silsili yi ñu ngi leen di nuyu dégg nañu ne ñenn ci suñuy nit àgg nañu fi yeen di leen lëjal di leen jaaxal ak seeni wax fekk joxuñu leen benn sañ-sañ ñun ñëpp juboo nañu tànn ay nit yónni leen fi yeen ànd ak suñuy xarit yu baax yi Barnabe ak pool ñu jébalu ngir turu Yesu Krista suñu borom ñingee yooni fi yenn mbook yuut ak silas ndax ñu wóorlal leen ci wax ci ñu ci li ñu binda ci bata xel bi leen ne neex na xel mu sellam yi ak ñun ñu bañ leen a teg yeneeni waru gar yu dul yu am solo moo di na ngeen moytu leeka ñam yi ñu jébal hérémia moytu it deret ak yàpp jur yi ñu rendiwul te ngeen bañ a njaaloo su ngeen moytoo yooyu yépp di ngeen def lu baax na ngeen góorgóorlu baatum yàlla la sant nañu yàlla pour suñu som dinañu woy suma xoola ngi ci yow suma xee ci yow la ne jébal na la suma dundage borom bi na sa kanam leer ngir ñun su ci day xam koon sa yoon ci xeet yépp sa mucca suma xoola ngi ci yow suma xel ci yow la ne jébal na la suma dunda gépp na waa réew yi yëpp bég di woy ndaxte danga yilif àdduna si ci yoon te di saytu xeet yi ci suuf si suma xoolaa ngi ci yow suma xel ci yow la ne jébal na la suma dunda gépp na xeet yéene ne yàlla nga nañu di la ci suuf sépp suma ngi ci yow suma ci yow la ne jébal na la suma dundage Our Holy Gospel is taken from the Gospel of John, chapter 14, verses 23 to 29. Father Edward Gomez will take the reading for us. Alleluia, Alleluia, Alleluia. borom bi nee na ku ma soppa dina jàppa suma wax suma baay dina ko soppa te dina ñu dikka fa moom Alleluia, Alleluia, Alleluia. na borom bi anda kiyenne l'evangile jésus krista ba sang musalama binda ndam ela na la borom bi bala yesu joge ci aduna sile dem fa bayam wanda talibem ya ne leen ku ma soppa dina jàppa suma wax te suma baye dina ko soppa dinañu di ko fa moom te dëkk ak moom ku ma soppul du jàpp suma wax wax ji ngeen di dégg du suma wax waaye baay bi ma yóoni aku aadu loolu wax naa leen ko ba ma nekkee ak yéen taxawukat bi di xel mu sele mi baay bi di yóoni ci suma tuur moom dina leen jëmantal leen te di leen fàttali lépp li ma leen musal wax jaama laa leen baatali kuma jaama laa leen may duma leen ko may ni àdduna di maye bu leen jaaxle te bu leen ragal dégg ngeen li ma leen waxoon maa ngi dem te dellu fi yéen si ngeen ma sopp si ngeen ma soppoon doon ngeen bànneexu moos ndege li may dem fa baay bi te baay bi moo ma sut wax naa leen ko tey balaa dara di xew ndax su dara amee ngeen góom mbokk yi lii baatum yàlla la sant nañu la krista bi mbokk yi ci juróom-benn li dimaasu paak ji la nekk fii nga xam ne moom lañu jegeñ si ndax mun a mottali xewte paak yi ci dimaas yi nga xam ne moom lañu am ci bésu ay yile te tey ci xewte gi yàlla digtal nañu ci ci kaadoom lii nga xam ne moo toppoon ci dimanche jële wéy yoon ndegam ci dimanche jële wéy